xam ni tabarkalla ñuy diine ji tey jii ñëw fii nga xam ni tabarkalla du ma ni kër soxna moom waaye seen kër ndax wàccukaay diine la wàccukaay waa kër sëñ Tuubaa la kër gu lislaam la Nasir Seck mi toog borom faydu bi waaye nag bi mu ñëwee ba toog borom kër gi daa ñëw waaye nag Serigne Abdou Khader Mbacke. mom Serigne Modou mbaktar mom Serigne Cheikh Awa Balla tabarkal di borom keur gi momit mi ngi ni tok di julli ci khatimin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidul awwalin wal akhirin sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne na mel gu serigne bi am mo waral bis bi di dalu yassa sunu jayante ak sunu cant Cheikh na Ahmadou Bamba khadim Mustafa sunu yakari tay ak ëlëk mbokk mi noo ngi am mboole mi noo ngi am mbégte lott ci lool du yëkkati kàddu yi suñu kilifa taalibeb Serigne Touba moom la jàppe boppam muy soxna Mominatou Kébé bintu ji Babar Kër Kébé taalibeb Serigne Touba mourid sadiq nee na mi ngi ziyaare Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaal mu yàgg fi te awér di ziyaare kilifu tedd yi nga xam ne toog nañu fi te jëmmam ji rek andi leen fi di ci jiital Serigne Sidil Muxtaar moom Serigne Cheikh Awa Balla mu Ibra Fati ñoo konak, nag néegub geet ndax soxna Balla Fati obala, Balla ak obala Awa Balla Awa Balla kumbu ñuul maam Jeng warax mbuuj mi ko ni Aram jor, ay sa mbooj ay sa mbooj ak warax mbooj ak jooju ak ma jigéen jub xar la wa tàkk sall buri jar na geet ba kon loolu la bokk ak njëb Serigne Cheikh Abdou kon seen kër ngeen ñëw te fatal maskura nee na mi ngi ziar ak di sant bokki Tiwaawanam yii mu Cheikh Abdoul Aziz ibnu maam Maodo mu Cheikh Abdoul Aziz Ndiol Fouta sa nga ñëw sa kër nga ñëw soxna Mariama Dieng Fatou Cissé Aïssou Ndiaye Alfay moo yoro foofu laay yem kon sa kër nga ñëw nee na mi ngi lay dalal jàmm te ci bëgg loolu at ñu ne nii ngeen koy defee nee na mi ngi sant wala rek di kenn ci kër gi ñëpp xam taxawaayam muy Serigne Nassirou Seck kat bi yàlla na ko yàlla sàmm soxna si ne taxawaay bi rendi ci moom lool di sant nag last but not least le dernier pas le moindre bokki boppam yi rawatina ay ndijaayam rawatina ay yaayam bokk lépp ak waajuram ak i xaritam ak i dëkkanoom ak i am bi jàmm mi ngi sant ñi nga xamante ni ñu yëkkati xasida Cheikhul Khadim te mu amul lu Serigne Touba amul benn bis bu ëpp bis bii nee na ñi nga xam ne ñoo koy gunge ci xat yooyu Cheikhul Khadim mi ngi ñaan Serigne Touba fayal leen mu ngi leen di bàyyi Cheikhul Khadim ak xasida yi ngeen di yëkkati nee na mi ngi sant doyen soldat Cheikhuna Ahmadul Khadim mooy juróom xaritam Alaaji Moodu Mbay Sàmb loxob Masaalikul Jinaan loxolu njëbu Sëriñ Tuubaa gi nekk Ndakaaru papa soxna si ne sant na la gërëm na la bokk yi kaddu yi nga xam ne soxna si yëkkati na ko kaddu cant rek la ndax ñu fàtte ne bis bii nu dajale jaamu bu yàlla bu yàlla teg ay nattu nangu ko amoon na mel gu kawe ci bokk ci ñu ànd nag Seydina Muhammad alayhi lu ahlu badr moo ko indi li ko dal lépp nee na kon bisub cant buñ ko fàtte nee na ñi nga xam ne ànd nañu ko ak moom ci seen jëmm ci seen pas-pas ak ci seen alal faw mu sant leen ndax ku du sant nit doo sant yàlla nee na mi ngi sant yàlla di sant yonent di sant Cheikhul Khadim di sant ñaari way juróom yi nga xam ne ñoo ko liggéeyal lii muy Alaaji Babacar Kébé ak soxna Mariam Dior sa radiyallahu anhum yàlla na yàlla yërëm leen ak jëmm ji ko yàlla booleel muy sàkku ngërëmal yàlla ci keppaaram muy borom këram di Serigne Abdoulaye Tagge du ko fàtte benn yoon mi ngi sàkku ngeen ñaanal ko soxna si nee na mi ngi sant njabootu Serigne Touba gépp waaye nag di am yoo xam ne da leen ci jukki ndax bi mu wootee bis bii ñoo ñëpp dañoo jël seen alal jël seen teraanga yu fasante ko yoo xam ne su ko doon lim fi lay yenn andil ko ko jàppale ko ko ci bis bi kon képp ku jàppale ki sant Serigne Touba te kat Serigne mi ñu sant benn yoon rek ci ak la masa laaj ndimbal moo ñu santale ko yàlla ndax ak sant boppam lott na ci sant yàlla ci xéewal ndimbal benn yoon rek la masa au secours mooy sant leen ma yàlla kon ñi nga xam ne dañoo jël seet alal ay taraanga yu fasanti ko andil ko ngir jëmmi yàlla yonente ko Cheikhul Khadim faw danga leen sant mu ci jiital nag njabootu Serigne Touba gi mooy waajuram xaritam léppam muy njabootu ko Serigne Saliou Mbacké mu mën caa jukki nak ki nga xamne ci mom la xamne lu dik talibi bi muy am juróom fukki at ak juróom la tabbi ci ay loxom muy Serigne mustapha Mbacké mu Serigne Saliou mu tarbiya ko tarxiya ko yar ko wan ko luy magal ak nu ñuy màggal te nee na liggéey bii lu mu rëy rëy fofé ca keparam lako tambalé kon mi ngi seereen mbooloo mépp cantam gu jëm ci Serigne mu moom Serigne Saliou nee na mënu koo fay mi nga ñaan yàlla mu fay ko ak nag mboolem njabootu Serigne Saliou gépp la ko dale ci Serigne seex ba cim caatam yàlla na leen yàlla fay soxna si nee na mi ngi sant baayam sëriñam xaritam sëriñ Sidil mbakki moom Cheikh Abdoul Ahad daf ko doomoo jàpp ko fonk ko waaye bokk yi fàtte xaju fi barab bi ñu daje wuy juram wuy juru Serigne Sidi mu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moo ko daggaloon Alaaji Babacar Kebe kon bu ñu fi dajee di sant Serigne Touba ngor ak jom dana may ñu jittal ci Cheikh abdul Ahad mi nga xamne mo jox bakk bi wajëla mu tedd yàlla nako yàlla fayal ndax liggey bi mi liggey Serigne Touba ci pàkk bi lakoy lakoy lakoy liggey la koy yombalal ko mbollem lu mu soxla ci suufus Touba kon soxla mo mi ne mi ngi sàkku ci yéen ngeen ñaanal Serigne sidi taxway Cheikh Abdoul Ahad bi yag lool waaye ñu ñaanal Cheikh abdul Ahad Mbacké sun borom dal li leer ak yërmande ndax kat mënu ko fay ben yoon cant googu nak yëmul ci serigne sidi mi ngi àgg ba ci mbollem ko Cheikh abdul Ahad Mbacké jabot di sant nag xaritu boppam di sëriñam nu bokk wenn wuy wayjur muy soxna Muhsinatu Mbàkke moom sëriñ Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad nee na mbooleem teraanga bu ñuy terale gan andi na ko ci barab bi kon mu ngi koy sant baax di ko gërëm soxna si nee na mi ngi sant wuy wayjuram bàyyam xaritam sëriñ Abul Baraka moom Cheikh amud Fadal kenn ku nekk xam na fi mu ko teg lu di xeetu teraanga sëriñ bi yónnee na ko fi ak boole ko ak i ñaan nee mi ngi sant way juram xaritam sëriñ Cheikh Mbacke ibnu sëriñ Abdul Xaadir ilimaan yi tey ak bu ëllëgee li mu def dafari lool ndax kenn ku ne xam ne sëriñ Cheikh xat na waaye une semaine avant màggal gi li yëkkati tànkam yu tëdd yi ñëw ba ci barab ni ko sama doom nga sama xarit la dama laa bëgg léemul ñaanal ndam rek ngay am ba boole ko nag ak ay teraanga yu fasanti ko mi ngi koy seeral mboolem tey sàkk ngeen ñaan ko nee na mi ngi sant bàjjinam soxna Bali moom Serigne Soxay bi muy soxna Bali Muntaxa teranga yu fasanti ko la anti andi te nag yëmul rek ci màggal gi at ma noonu la koy defee muy màggal di tabaski kon dana ko gaaral mboolem mi seetlu ak cant gu jëm si moom soxna moom Minatu nee na ku du sant nit doo sant yàlla mi ngi sant càmmiñam goroom xaritam waxandoom ki yor kàddu yoon yi Ah, Pierre Corneille, un écrivain français, disait qu'aux Zambiens, ah oui. la valeur n'attend pas le nombre des années. Et cet adage s'appelle bien sur ce que sur Et Il est jeune en âge, mais ses qualités, sa détermination à celui Cheikh Amadou Bamba, ayant sa parole ah et préférant sa parole. kon buñ fi dajee tey ñëpp ku ne am nga kaddu waaye dafa am loo xamante ni tey dama bëgg rek ñu en train ko سرين تبارا يكتي خالي أمني ردي عن الله وبرسولي وبعلي بدر وأتاني سولي يلا أك رسول الله أك أهل بدر تخلو نيو تاي سنتبو رضي أني خلفاء الأربع أبا بكر عمر عثمان سنتنا رضي أني سبته جيلاني شيخ بخادر جيلاني سنتنا ردي عن سبته تيجاني شيخ تيجان شريف سنتنا داني واخني ان جميع المسلمين والمسلمات لا ياي منهم ولا مات بين الانس والجن والملائكه خضر دو اني ردان يلا يينا نيت جن اك ملائكه لو دون لو فاتو ني بيسو تاي بي 18 سفر يي ييب سانت لين ما سيغ توبا كون خلا كون دنج تي أنا بوك ني جيري جيبي سيرين توبا كون بو نيمي با بيس بي بو نيمي با بيس بي Le respect de ces impératifs nous impose à chacun de nous des règles morales après devoir envers nous-mêmes ñu mën di dégloonte tuuti rek du Yag. mu mel ni bon cant gi xamoon ni weeru safar dafa am fu mu dugg diggante tëbaski bi yàlla ne Ibrahima ren li sa doom te booba gëm yàlla tax ku say téeméer at jege baa mu baa mu teg nga am benn doom ñu ne ko rey ko def yàlla terale ko am xar jotee nag ñëpp a koy def ndax dañ ko sunnaale Seydina Muhammad tam xarit tegu ci yonent yëpp yàlla teggi leen natu ñu coo cay sant ban moo ca tegu safar yàlla teg ko nattu moom muy sant ñee dañ leen ko teggil ñuy sant moom ñu teg ko ko muy sant bu weesoo nag beneen weer beneen weer a ci tegu kooku mooy kan mooy ashrafal xalqi 124000 prophètes yëpp moo leen gën 313 yi yàlla wàcc ci kaw suuf moo leen gën 25 yi alxuraan tudd moo leen gën juróom yi ulul hasmi moo leen gën moom kot rek dong la yàlla ni bu demee ba dee mënta ñàkk dama lay wax s'il te plaît. keneen ñëpp dama leen di rabas yóbbu waaye yow bu la neexee nga toog bu la neexul nga seet nooy def s'il te plaît moom rek ko mos a dégg. moćne. de njen ti tiveria da ga grav. tiveria ti veri quando ga mo grav. Kod safar nag di bis bii di 18 safar ajaru não momi kebe ñaan naa sama borom nga gudd fant wi gis nga fii tey bisu tey bii rek la sëñ Tuubaa mas ni kaay leen juróom-ñaari ati maa tegul tabaraka rabbun lii xada laada adda waxdoo faqiran xariban inda galwaa wa baafali mu metti lool benn benn nattu rek laa ci jël mooy keroog biñ ko gasee ci mpax jël cin togg cin li ba cin li baax ñu bëbax ci sëriñ bi jël nag kubéer gi ni ci kilib demee ba 13 xol bi ni ah man nag de mënumaa jàmbat waaye waxtu yàlla wi day lépp loo xamante ni waxtu yàlla wi tee dama ko defee ma jaaxal suñu borom ne ko bu waxtu yu jotee xam nga bala ñuy def dara nu ñuy def sallallahu alayhi wa sallam suma toog semaine boobu sallallahu alayhi wa sallam waaw dafa leen manqué rek yéen tamit ah. nga dégg 13h30 cin la daal di fàq sëriñ Tuubaa di allahu akbar mu ne ko xoolal sa mbana yee ca Tuubaa di tàkk may lay laaj ajaratu moom kër yi ginnaaw cinq millions de pèlerins ñoo ñëw Tuubaa tey tey ñaata mbana lañ taal ñaata mbana lañ taal sa kër gi ak kër yi nga dellal ak ñi nga xamante ni yaa leen koy jox mbaa duñ ko am ñoom tey jii ne taal waaw dama lay laaj mbuub ñaata mbana lañ taal tey mu tax tubaab bi ni ko qu'il devait se révéler comme le plus pacifique des prédicateurs de guerre sainte, le plus grand facteur de l'expansion économique, le plus solide soutien de l'ordre public, le plus zélé apporte de la fraternité, non seulement entre adeptes de même culte, mais entre croyants de confessions différentes. Bamba, merci. Eh, Assane c'est sëñ Touba joxe 500 000 francs français le gouverneur du Sénégal 50 000 le joxe joxe 400 tirailleurs mourides sama baay ci la bokk ni une guerre 14. ku bëgg sam réew noonu ngay def kon buñ fi taxawee na kebe nga ne nag cant yëpp nañ ma ko jël santale ma ko sëñ Touba ah wax nga dëgg kat man de maa toog Cheikh Abdoul Ahad toog sa bu baax ba toog mun ko barab bii di barabu sëñ Touba dama fay bëgg a def làmb bopp doo ko gis fenn fu dul Madinatul Munawwara sëriñ Touba ni ko borom dëkk bi de nee na këram taxaw waayu makk ak madina lay taxaw wa jël yel daariyakal madina barakatan wa kaabatan masura ñu indi lampe bi muy 4 tonnes 800 sëñ Tuba sëñ sëñ sëñ Abdoulaye ko bu ko sëñ Tuba moomee wékkal dama xool lampe bi fañ ko wékk ak lay di ko téye ndeke booba sëriñ bi bindoon la loolu sa baay bëggoon a def wajaliyal ariira wa dibaaja fil xabri yaa baasitu wa siraaja yàlla sama xabru na doon xabru or massif ba lamp boo xamante ni lamp bi day tàkk ñëpp xam ni maako moom sa bàyyi ko def kon la sëñ Abdoulaye ni ko yàlla dana teew Rasulullah teew Serigne Touba teew ma teew nga teew Alaaji Babacar Kebe man mii maa lay seere sa digganteeg Serigne Touba waaye nag buñu dee seet nag ah, jaan ju góor ju jigéen amul lu su mattee ba lugul amum néew nga taxaw ci taxawaay boobu ci diine ji taxaw ko Tiwaawan taxaw ko Pire taxaw ko Kawlax bokk yu baax yëpp daje kon damay mel ni kon buñ ñu wax accident mortel boo gis nag dina am blessé gram tëf gis nga 18 mii waaye 18 grave sëñ Seck 18 bindal ñaari tànki ganaar ñeenti tànki béy ñeenti tànki xar du diis a ngoog ñeenti tànki nag ñeenti tànki gëléem mooy secret bi di xayu di xayu di 18 kon 18 garaaw lool di 18 safar sëñ Tuubaa ne koo xamante ne sama mbégte mooy seen mbégte na nga ñëw santale ma yàlla sa bàyyi njëkk yëkkati junni nag jox ko Cheikh Abdoul Ahad ñu nañ ko jox njabootu sëñ Tuubaa kon nag ya yaakaar naa ni loolu kene loolu mooy li taxaw bi ñu des nag fi may wàccee kàddu yàlla day laajaat mbokk ëllëg te bi lay alsan nga mu toll ni yàlla bu lay laaj lu mu la gën a xam boobu am na lu mu nar mu di laaj bokk ëllëg nga xool bokk yi di mel ak ñoom. nee ba mu tuuru. waaye waruñoo jël ndab. nee jël ndab. def ci xeer. def ci xeer. nee di ko buuxante. ba kenn ku ne sa bopp toj. alaaj na si sekk. nee sa kàddu nee mën na leen yóbbaale ñëpp doy na leen ndax kër gi sa kër la nee na moom fi mu nekk nag moo ko moom nee moom mooy dalal gan yi nee kenn du ko fi dalal ndax ëttu boppam la ñëw nee ñaari yoon nee si wàllu baay ak si wàllu ndey ndax kon boog nee kàddu yi moom moo ko war a joxe. ndax nit soo toogee gërëm sa mbokk. ndax nit boo toogee ñu gërëm sa bokk. nee sag la. tiitar la tiitar la. waaye ndam la it. waaye ndam la it. rawatina ci jigéen. nee rawatina ci jigéen ju baax ji toog. nga xam ni ne yàlla nag moo taaral jigéen. jox ko pouvoir. nee jox ko pouvoir. jox ko mérite. nee jox ko mérite. jigéen nag su sàmmee loolu. nee jigéen nag bu sàmmee loolu. yàlla dogal tey. ba lii yàlla dogal tey. muy ndamu lislaam lépp. di ndamu Seydina Muhammad nee di ndamu Seexul Xaddim nee yàlla dogal soxna moom mi mii toog nee bokk ci wàll yëpp nee sëtu wàlliw la nee sëtu buur la tabaarkalla macha allah soxna moom mi daal mooy Sénégal nee toog nag ñuy tagg bokkam nee doy na ko bégte walay si Malick walay kon nag loolu mooy kàddu ñu jox Cheikh Ibra Cheikh Ibrahima Niass ne mu yëkkati kaddu yi jëm ci alaaj na su sekk xaar xaar xaar waaw nee li muy wax bariwul nee na bàyyi daa góor nee mbaay nee day génn léegi nee mu dajanteeg moom nee mu ànd oustaz Pape Anne ak oustaz Modou Fall mu ne ñëw na fu bu yàgg nee booba boobu yaay ubbeegul nee nag mu génn nee ànd ak frère bi ak doomam yeeg rakkam yeg ñëpp Xaas Malick Mam Moussa Ale nee ñëw seen kër te boo seetloo sax mu ne lef wi ku gën a tedd wax na ci xam nga sëñ sa Amadou Bamba ñëpp dañ naan ku tedd ki waaye moom Baye Ñas ki gën a tedd la wax al amjadu afaala tabdil la jëfandikoo ci wax ji li tax ma ubbee loolu mooy dëgg dëgg dañ fay dajee ci dajee boo xam ne dajee sant yàlla la ñëw ànd ak koo xam ne ku jara ànd la tey ci yu mel nii rek ci la dëkk di ko def ana alayli wa atrafa nahar mooy fu jotaay bu baax am suba ak ngoon guddi ak bëccëg dana bàyyi itam yëpp dajale délégation ne ñëw leen ñu dem te gëñ naa ci yàlla ne dëmb ci heure bii man ak moom ñi ngi aéroport Dubaï pour war a décoller foofu pour ñëw senegal parce que bés bi rek moo ko itteel soxna muminatu muminatu xam nga olof fay yàq tur waaye kii turam bi bu gën a sell ci tur yi la al muminatu xam nga alquran boo demee ci ca laaya jëne inna al muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati foofu garaat gu yàlla jox góor na cër boobu mën na faa jox na ko jigéen kon tur bi tur bi dafa am solo moom laa ci soxla muminatu moo tax ma gëm ne képp ku fi toog gëm nga yàlla képp ku fi toog Cheikh Ahmadou Bamba nangul na la sa bésam nga xam ne ci nga ñëw di ko santale boromam Cheikh Mouhamad Nazir ñu ñëw ànd ak moom jugee ko Dakar yoonam yaramam su tante woon na sax ci suba teel la ma jot dama sama yaram métti na ma ne ko wallahi da nga dem parce que xam naa sa itte ci jaami yàlla yi xam naa sa kóllëre ak waa Touba yi ñu toog ba mu yàgg rek mu ooma ne mu bismillah kon waaj leen ñu dem bi muy ñëw moom moo jiite délégation bi Cheikh Mouhamad Nazir Seck nekk alfailul xeer defkati lu baax ci jaami yàlla yi waxuma ko de waxuma ko ngir ne dama koy wax lu ko neex de alsaan mi xam na xam naa bu baax alsaan baay mi xam nañu bu baax ci Medina ci diite fukki at wala fukki at ak juróom mu ñëw ñu doon gënuñu boobu sax emuñ nii alsaan xam na Cheikh Mouhamad Nazir lu mu mës am rek moom ak jaamu yàlla ñoo koy bokk bu amaan dix mille francs dafay oote ne ñëw leen ñu attaaye fexe ba ñëpp it di yendu su ñëpp ñëwee mu def ci ataaya ak teraanga yi mu ci mën a def moo tax ma xam ne incha allahu taala bu ko yàlla dimbalee fokk mu jëf jëf yooyu nga xam ne rek la xam nampee ko ci ay maamam nag ak ci ay baayam nampee ko ci kim yakar bëgg ko nga xam ne kooku rek lay doxee kooku rek lay tiitaroo muy Mawlana Cheikh al Islam Alhaaj Ibrahima Niass radiyallahu anhu dimbali dimbali na ñëpp koo dajal mit na muy dox mi ngi ànd ak ci délégation bi Cheikh Abdou Samad nek mbokam nek xaritam nek sopem. Cheikh am Cheikh Abdou Samad ibnu Cheikh mohammed Yassine ibnu Cheikh Ibrahim mi ngi non tok den deg sang bu tedd bi nga xamne deug deug yagna diko gis ci écran bi moy mom Abdou Simi deug deug yagna diko gis ci écran bi waaye foko gis rek deug deug ay teranga rek ak ay mbax rek ak jotay yu melni rek ci ngui gis yalla mi dara maam Cheikh Ibrahima Fall ba nekk ko yàlla dina dund ba jàg mën a aadoom faaxaalu li maa yuri nga xam nga lu ko neex mu def yàlla jëfandikoo coobaram ab nattu dal ko mu nekk fa ab diir ba yàlla mii tege ay nattu ànd ko ak gëm yàlla ànd ko ak dogu te xam ne suñu borom lépp ngi ci loxoom ba yàlla dogalee suñu borom teggi nattu ba màggalug maam gi fekk ko ci ay loxo nee na mu koy santewaat Serigne Touba kon sant lay doon à un double titre muy kenn ci moom nee na mi ngi koy solo njaboot gi di ko sant ki taxawaayam ci moom ndax kat bu ñu fàttali ne ay weer yu néew ci ginnaaw dafa def teraanga ju rëy mooy yàlla jox ko leer mu ne tëf ni Alaaji Babacar Kébé kon soxna si nee na mi ngi ñaan ngeen ñaanal suñu borom mu jàppale suñu asan te sàmm ko ndax bi ko yàlla tegeem na taw tegoon na ko waaye yàlla na doon ay martaba mu yëkkati ko ni ma waxoon léegi nag sëriñ bii di sëriñ jii di Mbàkke moom sëriñ Sidi Muxtaar moom sëriñ Muxtaar ma ca taar ba moom sëriñ Cheikh Awa Balla bokk ci kër gi ndax maam Thierno nañ ko jox soxna Awa Balla moom muy Awa Balla moom sëñ ko joge islam moom mu di fax ko ji moomu tàndumbe mu am ci Cheikh Awa Balla ak mu di Awa Balla ak Fati Awa Balla ak nekk Awa Balla Awa ñuul maam jëng war mbuj mu jigéen jóob xar lu takk sàll buru jarlu genn genn jur ko astabin sëriñ astabin faatu mbay asta bint asta bint aram joor ay sa ma jigen jóob xari loo takku sal buri jor na gerte ba gerte gi rek la bëggono andi motax mu ne mbokkam mi amna fi kàddu cheikh abdul khadir tafaddal maskura genn kilifaam def ko muy kilifaam def ko muy mamam di léppam muy serigne salih roy ko ci yermane ja roy ko ci ndimbal la loolu kenn ku ne xam na ko te lu bax li ngeen di wax ci mom nun ñi di bokam noko ñëk wax ndax bo démé daru moxoti da nga fekk ay turandom yu sant mbacké bo ñëwee fi tuba da nga fekk ay turandom yu sant mbacké kon nak mbax gi ngeen di wax ci ay bokam la ko njëkkee dañuy ñaan nak yalla nak suñu borom taxaw ba ak talibem lépp sunu borom sàmmal ko ko ci barkeb Serigne Touba moom lu baax rek la xam ndax moom la doon tab geeg da koo doon ci baayam ndax alaaji njuga képp ku mu bokkal Thierno jëndal na la Mercedes képp ku mu bokkal Serigne Touba jëmbal na la Mercedes Serigne Cheikh Bala bi mu fi jóge Mercedes classe bi mu fi bàyyi alaaji njuga moo ko jëndal. alaaji maam Cerno moom la doon ba léegi mag ak oto ba kooku nag fàtte wuloon ay bokkam kon bu la juree nga mel ni nga mel da ngaa mel ni nga war rek loolu nag sunu tiital nun ñëpp yàlla na sax amin ndax yàlla dafa dogal sunu consœur muy soxna Fatou Kiné dem nekk ci groupe Frip Meda yàlla dogal tey mu wàcc ab liggéey la fleur de l'âge ndax amul juróom fukki at yu mat yàlla na ko yàlla def bar sax muy noppalukaayam yàlla na xéewal di su safar wàcc ci moom soxna moom mi nee na elle la famille de la défunte groupe Futurs Médias ak mboolem la famille de la di ñaan su mborom wàcc yërmandeem ci moom te di ko jaale te di ko ñaanal xam ngeen kenn ku ne xam na presse bi ñu toll ci soxna si groupe Futurs Médias gis ngeen wàccuwaay bi ñu am ci kër gi kon nag nee na ñun ñëpp ñu fàttali leen ci ay ñaan dafa leen fukki ixlaas ak benn